Abdou Sène. Abdou Sène eh, waaw def waawoon moom yàgg naa fee ñëw. waaw. waaw waaw. Ah, waaye waaye waaye yéen moom wax dëgg yàlla neex neex na moom. waaw wax na doon naa amaay naa yëngu ne wax dëgg sant yàlla baax a baax. maa ngi dëkk ci kees. waaw. Ah, man yàlla yàlla na woon ay ay semence. àdduma samedi dimanche altine talaata tay ah kon ah. lan la moom noo koy def ah yenn saa te paasat at si lekk ba tey muy deex ma ma dama waa naat waaw am naa soxna benn doom waaw. ginnaaw ma ba ma jógee fii maa nekk marché bu mag. mag waaw kees. fon fa nekkee ba takkusaan siisee ñibbisi naa sangu ba sa tëdd na yow fu ma damaat waaw waaw woo yaay def xam ma bu yaay def moom yaay waan te def waaye Touba jaay ataaya bëgg lu ma gi xewlu rek yàgg naa ko def moom laay def Touba non bii moom c'est bii moom sant nañ yàlla sant nañ maam alaaji Maalik sant nañ Seexuna Ahmadul Xadim ndax mag ñu baax ñi moom lépp lu ñu sàkku mooy ngërëm suñu borom wax dëgg yàlla bu ñëwee si gàmm gi la ma la ma la def Tuuba def naa ko fii sant naa baax baax baax sant naa mag ñu baax ñi xam ni mag ñu ñooy senegal bu bu suñu xol bu seddee man mën nañu xolu taalibe sedd na daal. ñaata fan nga fi def. man euh, bi ne suba la burdu bi laa fi ñëw. Euh, à peu ñaata nga doon am par macha allah macha allah bu ma xëyee nee naa door 6 000 7 000 waaw jaay ataaya rek léeg-léeg mooy waaw bu baax daal wax yàlla moom day sant yàlla rek. gàmm gi wéyee nag la looy def. dem Ndiassane bu ma jugee Ndiassane dem Touba waajal fa Porokhane waaw jàpp suñu bopp daal sant yàlla gërëm suñu borom rek. xam ne bu yooyu yëpp jeexee nag léegi looy looy dundee sa njaboot. ataaya ji rek Touba sa garage ba voilà koo fas yéenee dóoree waaw xam nga góor dafa war am jom góor day war ñafe. waaw toog ci kër ganaan kër gee nga neex non loolu du yëfi góor góor wut na yëfi yëfi jàmbur góor daa war a ñafe avenir am dox na rek waaw dox na sant nañ suñu borom dañu bañ a toog rek kër kër yi suñ fa ko wax ne góor day kër kër yi sama avenir sama avenir du may sarale samay mbok laa ñaan yàlla bëgg naa ko ndax bu ma demee damay gën na ñafe jox samay mbokk Espagne bëgg naa ko dem dem Espagne waaw man dañ denc ma dara lu ma am dama ko joxe dépasse dépasse moo tax a jóg waaw góor moom dépasse rek de góor am jom ma am jox sama soxna ak sama yaay ak samay waajur ak samay mbokk samay mag maa ngi ci man Xaadim maa ngi ci moom lay bëgg saa su ne waaw incha allah. Daba Mbaye. fii laa toog di jaay livre euh, explique aux enfants Salatul Fatiha bu Cheikh Ahmed Tidiane Serif. sëñ Abdou moo ko déclaré si télé bi na ko na nee na na ko ñëpp jënd 1000 francs lañ koy jaayee si gàmm gi prix normal nag nag 2000 la ñu ngi koy jaayee Dakar Plateau numéro téléphone yi tamit mu ngi si ginnaaw livre bi pour ko pour keneen ku ko bëgg tamit mën nga te dëkk Dakar mën nga dem foofu jënd ko adresse bi. njaay mi dangay ñëw jënd boo ñëndee ñu daal waaw dox na waa dox na nit ñi moom jënd nañ ko macha allah démb démb jaay naa presque cent cinquante mille tey moom dafa xaw a seer na dañoo delloowaat prix bi normal deux mille moo tax nit ñi euh, xaw a wàññi jënd bi tuuti. waaw si biir dañ fi dañ fee def ñu expliquer jaar-jaaru si Ahmed Tidiane Serif histoire si Ahmed Tidiane Serif après ñu daal si def salaatul fatiha bind ko en français en wolof ba pare ñu firi ko def si tamit 23 sat yi nga xam ne moom la Tidiane yi war a jëfandikoo. pour si tariixa seex bi buñ bëggee jël werd waaw ren laa ko mës a jaay tey la première édition bi waaw dans la même collection bu beneen yoone tamit dinañ defaraat livre comme ça ñu exemple ma laaj Maalik ñu bind histoire am def ko si livre yi di ko jaay loolu